الله الله الله الله الله الله أليف الله الله الله الله الله الله أليف الله الله الله الله الله الله أليف الله الله الله الله الله الله أليف الله الله assalaamu aleykum tabarakallahu ñi ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara te di yeesal sunu cant jëme ko ci yàlla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 fa tabaarakallaahu ñu dellusi ci fi ñu yamoon keroog ci tafsirul quraan bi tey ñu ñëw ba léegi ci dialogue bi nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala moom lay dialogue ak naarfeq yi waaye itam lépp rekk mu jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme pour jàngal ko ñi nga xam ni dañoo naq di xam ndax naar neexula ràññi mag ñi ci seen njàngale dañ daan wax ni nit dina sol yére bu jekk daldi takk mbaxaneem bu rafet daldi revendiquer appartenance am ci diinal islam walla mu rëb revendiquer appartenance ci tariqa te fekk na la mu revendiqué yépp gëmu ca dara moo tax lu jar di bàyyi xel la moo tax lu jar di bàyyi xel la ndax yàlla daf leen xam ndax yàlla xam na ku nekk su ko defee nag mu indi dialogue bi nga xam ni seq na kaak ñoom pour jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñan lañ ca bële paase mu wax leen ni wa ida qila laa tufsidu fil ardi xaalu innama nahnu muslihun moom la ñu tontu woon te yàlla dem di leen wax ni ala innahum humul mufsiduuna walakinna laa yashuruun le faiseurs de dégâts. Mais ils n'en ont pas conscience waaye ba léegi yàlla di continuer ak ñoom mu wax ni wa iza qila lahum aminu kama amana annaasu xaalu anuminu kama amana shufahaa'u ala innahum humul shufahaa'u walakinna la ya'lamun lorsqu'on leur dit Croyez comme croient les hommes. Ils répondent, Croirons-nous comme croient les insensés Or les insensés, c'est eux. Mais ils n'en savent rien. gis nga ba léegi da ngay dégg yàlla ci biir dialogue bi ak ni muy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ñu ñan lañ yàlla ni bi ma leen waxee wa iza qila lahumu laa tufsidu fil ardi bu leen yàq suuf indi woon nañ ko ca waxtaan bee passé xaalu ñu tontu ni innama nahnu muslihun noo ñun duñu yàq ñun ay defarkat lañ ak lañu ca teg yépp ak lañ ca détaillé mais yàlla delloo leen kàddu gi kàddu gi mooy yàlla joxoñ leen ni leen ala innahum humul mufsiduuna ni yéen yéen a yàqkat yi walakin la yash'uruun loolu mooy problème bi yàlla ni yéen yéen a yàqkat yi waaye dafa mel na da ngeen ko yëgul nag lu jar di bàyyi xel la ala innahum humul mufsiduuna walakin la yash'uruun yàlla ni yéen ñii di wax dangeen di defar au contraire yéen a yàqkat yi waaye dafa mel na da ko yëgul gis nga yàlla dafay wax ni ci xikma bi nga xam ni day dellusi ci aaya bi ala innahum humul mufsiduuna walakinna la yash'uruun yàlla day wax ni gis nga nit dina toll ci benn moment dafay réer ba defe ni réer ga mu nekk mooy dëgg maa ngi koy wax ci jamono yee passé ne am na ñoo xam ni preuve boo leen mënta wan boo leen wàcceeloon jant bi seen kanam sax ni mi ngi nii ñu ni gisuñu jant bi kooku yàgg yàgg yàgg ci réer moo koy indi lu jar di bàyyi xel la nit dina yàgg ci réer ba dootul mën a génneeku moo tax yàlla ni ñii ñoom ba ñu koy tontu dañu ni innama nahnu muslihun yàlla weddi leen ne ala innahum humul mufsidun ni yéen yéen a yàqkat yi waaye walla walakinna la yashurun dafa mel ni yëgu leen ko nag mooy nit koo xam ni dafay persister ci biir réer ba mu ne dafa ni loolu dëgg la nit dina toll foo xam ni dafay réer ba dootul mën a géndeeku waaye itam nit dina toll foo xam ni dafay defe ni ki nga xam ni mooy borom bi subhaanahu wa te nga xam ni lépp yëg na ko lépp xam na ko day defe ni mën na ko nax moo tax ñaar yi yëpp dañ koy dégg ci xaqiqa bi benn bi mooy nit ki defe ni moom mën na nax yàlla ndax mi ngi koy wan ni ko noonoo man duma yàqkat defarkat la yàlla ni la yàqkat nga waaye comme mënoo ma nax nag danga mel ni yëguloo ni mënuloo ma nax man yàlla beneen bi aussi mooy nit ki réer ba defe ni la mu nekk mooy dëgg te loolu mooy arrivé ñu bare loolu mooy arrivé ñu bare léeg nit réer ba defe ni réer ga mu nekk dëgg la te su boobaa rek dafay juumloo boppam lu jar di bàyyi xel la moo tax yàlla ni leen alaa ala innahum humul mufsiduuna walakinna laa yashuruun yéen yéen a yàqkat yi waaye dafa mel ni nag yëgu leen ko te loolu mooy danger bi ci ne looloo tax bi mu jaaxalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko jaaxal mooy nan la nit di positionné woo nekk ki nga xam ni yàqkat la te bañ ka nangu walla mu positionné wu nekk ki nga xam ni yàqkat la ba pare wax ni moom du yàqkat defarkat la walla mu positionné wu nekk ki nga xam ni yàqkat la waaye yëgul ni yàqkat la yàlla ni ko déglu ak ñoom ba léegi xam nga lu tax ñoom ñu nekk yàqkat ba noppi yëguñu ko mooy dafa am vision bu nekk ci seen bopp yi ñoom dafa am gis-gis gu ñu am te gis-gis gi ñu am bokk na ci jàpp ni ñoom dong ñoo xam li xew wala ñu jàpp ni ñoom dong ñoo yeewu am na ñoo xam ni ku ñu gis ni dafa réer parce que pour ñoom ñoom dong ñoo yeewu te li ko indi mooy dañu jàpp ni ñoom dong ñoo am vision bi nga xam ni noonu la àdduna bi war a doxe wala noonu la zaman war a doxe wala noonu la organisation war a taxawe léegi nag organisation bu dikkati bu taxawul ci seen ligne rek ñu ni ñooñu euh, organiser loolu dañu réer yàlla ni wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu halu an numinu kama amana shufaha'u ala innahum humul shufaha'u walakin la ya'lamun yàlla ni wa iza qila lahum bu ñu leen waxee bu ñu leen waxee ñun yàlla lan lañ leen di wax aminu gëm leen kama amana naasu ni nga xam ni nit ñi gëmee nañ ko aminu am leen kama amana naasu idéologie bi nga xam ni ñi nga xam ni moom lañu ñu taxaweel islam idéologie boobu lañu amee lu jar di bàyyi xel la wa iza qila lahum aminu kama amana naasu aminu gëm leen kama amana naasu ñi nga xam ni noonu la nit ñi gëmee mooy ña amee idéologie islamique li islam taxawal li islam organisé li islam dëggal yàlla ni buñ leen waxee ni gëm leen ni ñu gëmee nga xam ni dangeen di topp chariatu muhammadiya waaye topp aussi organisation islamique bi na moo demee ci biir société musulmane bi ñu xool ñooñu rekk jàpp ni ñoom ñoo ëpp xel ñooñu moo tax bu ñu leen waxee ni nañu gëm wa iza qila lahum aminu kama amana dañu naan xaalu anuminu kama amana sufahaahu xaalu dañuy wax ni anuminu nu kama amana ni nga xam ni ñii seen mbopp yu feesul yi eh, noon lañ gëmee ni dof yi gëmee <laughs> xaalu anuminu kama amana sufahaahu nan la ñuy ni nga xam ni ñii noonu la ñu ñoom dof yi ñoom ñoom ñi seen mbopp yi feesul ndax da ngeen bëgg ñu gëm ñii nga xam ni ñoom ay dof lañu nañu gëmee ñu gëm noonu noo tey mooy li am ci monde islamique bi nga wax nit mu gëm yàlla mu ni non man islaam bii arrangé wu ma islam bi ma arrangé mooy islam euh, islam moderne bi léeg ma dégg suñu mbokk yi wax ko may reeloo ndeysaan jamono yi dégg naa ko ñu naan islaam de France <laughs> mel ni islam de France dafa am islaam benn la amul islaam de France amul islaam d'Angleterre amul islaam du Sénégal islaam islaam la waaye léeg-léeg nag nit ñi seen idéologie yi ñoo utiliser moo tax ñuy dem ba wutal islam euh, benn dëkk nañ fa jàppee islam benn euh, beneen dëkk nañ fay jàppee islam moom la ñuy tontu ni xaalu anuminu kama amana sufahaau ah parce que ñii dañuy wax ils sont dépassés ñun nag comme ñu ngi ci réalité yi am na mën nañu gëm d'accord mais dafa am na ñoo gëmee fekk am na ñoo xam ni ñoo tax tey jii ñuy diaboliser islam te fekk ñoom ñi wax ni ñooy revendiquer islam ñoo njëkk tooñ islam ndax question d'interprétation daf ci am islam du religion de violence islam tolérance lay woote mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ëpp ko woon jàmm ñi am jàmm ñëpp ci barkeem la ñu ko amee mais lépp dafa am ci principe yu muy tegu ndax yàlla mooy tëralal jaamam condition mais jaam mënul tëralal yàlla condition lu jar di bàyyi xel la moo tax mu ni wa iza qila lahum aminu kama amana naasu bu ñu leen waxee gëm leen ni nga xam ni ñiy yore idéologie islamique noonu la ñu gëmee xaalu ñu tontu ni anuminu kama amana sufahaau ndax ñun daañu gëmee nii nga xam ni ñii seen mbopp yi feesul moom la ñu gëmee seen texte yi nga xam ni ay siècle la ngi nii ñu ni alquran nangam nàngam waaw daal di gëm yonent bi sallallahu alayhi wa te mosuñu ko gis wax wax léegi ñun ndax daañu gëmee ni ñu gëmee ndax ñooñu ni ñu gëmee ñun daañu gëmee noonu parce que dañu jàpp ni ñoom ñoo ëpp xel ñi xaalu anuminu kama amana shufahaau yàlla ni ala innahum humul shufahaau pourtant yéen ñii nag yéen ñii jàppe ñee dof au contraire yàlla ni yéen yéen a dof waaye walakin na laa yaalamuun waaye ba léegi nag da ngeen ci xamul dara dangeen ci xamul dara lu jar di bàyyi xel xam nga nit dina dem ba boppam feesul te du yëg ni boppam feesul ndeysaan boo ñëwee ci ëttu Sénégal danga daan dégg ñu ni bare na dof yu nekk ci biir kër yi waaye nun sunu réew dañu tàmm balaa nu naan diw dof la mu gàddu yatam di dóore te léeg nit dina gàddu yatam di dóore fekk na am na koo xam ni moo ko gën a dof te mi ngi ci biir penc mi gàdduwul yat dóorewul te moo gën a wére di ñëpp loolu la yàlla di jàngal ñii ndeysaan nga xam ni dañu yaakaar ni ñoom jullit yi ak nii nuy pratiquer seen diine li ñu wérul moo tax ñu ni xaalu anuminu kama na sufahaawu ndax ñun daañu gëme nii nga xamee ni ñi seen mboppu feesul moom lañu gëme yàlla ni ala innahum humul sufahaau yéen ñii nag yéenay ñi wérul ñi yéen ñi la seen bopp feesul waaye xam nga lu tax ñu bàyyi leen ba léegi ngeen di xalaat walakin la yaalamoon da ngeen ko yëgul mooy nit dina dem ba toll foo xam ne amul xel mais dafay defe ni moo ëpp ñëpp xel nit dina toll foo xam ni xelam matul mais dafa yaakaar ni ku xalaat ku nekk rek mën na la jox xel moo xam ni mooy gën a rafet te fekk moom ci boppam sax xelam matul mooy déggul jamono te bëgg àtte jamono lu naqa di organise la te nga gis ku déggul jamono ba noppi bëgg àtte ni jamono di tëdde yàlla delloo si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi mu am pour jàngal ko melokaan bi nga xam ni moom la di adopté wa iza qila lahum aminu kama amana naasu bu ñu leen waxee kaay leen gëm ni nga xam ni noonu la nit ñi gëme nit ñi gëm mooy nit ñi nga xam ni dañu ànd ame idéologie bu islaam nga xam ni ni islaam d'accord noonu la ñu d'accord li islaam digle ci loolu lañu nekk li islaam tere loolu la ñu bàyyi yàlla ni nag suñu leen waxee ni kaay leen ànd ak groupe gi wa iza qila lahum aminu kama amana annaasu xaalu ñu tontu ñu ni anuminu kama amana sufahaau ndax ñun daañu gëm ni nga xam ni ñii ñii nga xam ni ñoom ils sont dépassés ni ñu gëme ñoom waaw di wax wàllu texte alquran loo xam ni ay siècle siècle la woon di wax yonent boo xam ni mësuñu ko teg bët léegi nag ñii ak seen pratique religieux bi ndax ni ñu gëme ñun daañu gëme noon yàlla ni ala innahum humu sufahaau waaye nag walakin laa yaalamuun yéen ni ngeen jàppee ni ñii amuñu xel au contraire yéen yéen amul xel ala innahum humul sufahaau waaye nag walakin laa yaalamuun problème bi mooy di ngeen ko yëgul da ci yëgul dara maanaam da ngeen dox ci benn science di ko cultiver ba defe ni yéen a ëpp ñëpp xel xamuloo bare na loolu ñu mu dal bare na loolu ñu mu dal parce que tey boo demee ci domaine philosophique da nga fay fekk ñoo xam ni pour ñoom lu ñu gisul rek waruñu ko gëm moo nga dégg ñenn ci ñoom dem ba ni yàlla amul te xamuñu su nit demee ba taxaw ni yàlla amul fa la ñàkk xel doore ndax ki ko bind ba mu taxaw di wax mais kooku moo ko amal te ku la amal kon kooku mi ngi exister ku la amal jaarele la ci ay waay jur ba nga juddu ba amee xel di xalaat kon kooku mi ngi exister te léeg nga dégg ku defa ni moo ëpp xel ñëpp dem bay xalaat loo nit ñi loo xam ni dafa ci jublu pour bloquer leen waaye dafa ci jublu pour weddiloo leen borom bi kooku la yàlla ni ala innahum humu sufahaau lu jar di bàyyi xel la ala innahum humu sufahaau walakin la yaalamuun problème bi mooy yëgu ko dafay defe ni ba léegi rek xelam ni muy màccee xelu kenn du màccee noonu looloo tax yàlla day wane naar fekk yi seen melokaan ñoom bu ñu xoolee début bi yëpp nga dégg li yàlla organisé ak ñoom nga gis ni dafa am taxawaay bu ñu am ndax yàlla bi mu waxee yonent bi ci alquran ni ko wa min annaasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil axiri wa ma hum bi muminin léegi yonent bi mënul woon comprendre nan la nit di waxee ni gëm na yàlla nan lay waxee ni gëm na àllaaxira waaye fekk jëfam du ko wane yonent bi mënul comprendre loolu léegi yàlla ni ko nag déglu ma ak ñoom ci dialogue bi ci la ñëwee ni seetal rek su ma leen waxee wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi xam nga lan nañ may tontoo xaalu innama nahnu muslihun yàlla ni su ma leen waxee bu leen yàq suuf ñu tontu ma ni ñoom au contraire du ñu yàq suuf mais dañ koy defar ak kàddu yéen cay teg yàlla ni man mi xam suuf nag bind ka man maa leen wax ñoom seen melokaan moo tax ma ni ala innahum humul na waaye laa la yashuruun problème bi mooy yàlla ni yéen ñii di wax da ngeen di defar yéen a yàqkat yi waaye luy problème bi mooy yëgu leen yëgu ni yéen ay yàqkat ngeen da ngeen dem ba amatu leen xel mu ngeen xalaate moo tax ngeen di def lu ñaaw jàpp ni lu rafet la waaye mu dellu ba léegi ni seet maak ñoom rek wa iza qila lahum aminu kama amana naasu su ma leen waxee gëm leen ni nga xam ni noonu la nit ñi amee idéologie islamique gëmee xaalu ñu tontu ñu ni anuminu ndax daañu gëm kama amana sufahaa na nga xam ni noonu la dof yi gëmee yàlla dellu ni leen ala innahum humu sufahaau pourtant yéen ay dof yi nag waaye walla la laa yaalamuun problème bi mooy yëguleen ko kon gis nga dafay am benn côté boo xam ni dafay laal ni société musulmane bi di doxe waaye itam mu am beneen côté boo xam ni boo ko delloosee ci interprétation rek da ngay comprendre dëgg-dëgg réalité bi lan la te muy côté xaqiqa parce que côté xaqiqa bu ñu ci dellusee nga indi baatu wa isa qiila lahum aminu kama amana naasu tey ji nit mën na dox ba yàlla wanale ko ak dëgg ndax dëgg sens la dox ba yàlla wanale la ak dëgg dëgg sens la nit mën na dund ba génn àdduna te du gis dëgg yàlla wanale la ak dëgg loolu sens bu rëy la léeg-léeg nit mën na dox ba yàlla wanale ko ak dëgg ci zamanam léegi nag dëgg googu moom su ko gëmee dafa am nun koy xoole nan koy xoole mooy li nu aada woon gis xëy na moom yàlla wanale na ko ak dëgg te dëggam boobu teguwul ci aada ci xaqiqa la tegu su ko defee mu gëm-gëmam mais gis nga bis buy dem bay inciter nit ñi pour ñu gëm day dellu si waat aaya bi wa iza qila lahum aminu kama amana nas mu dem ba ñu ne ah gëm leen ni nga xam ni ñii gis nañu dëgg bi ñii nii lañu gëmee seen spectateurs yi daal di leen tontu xaalu daldi leen wax ni anuminu kama amana sufahaau ndax dinañu gëm ni dof yi gëmee ni dof yi gëmee parce que ñooñu ñu tuddee dof yi li nu gis dëgg te seen dëgg nuroowul ak aada xaqiiqa la moo tax seen spectateurs yi dem ba jàppee leen ay dof xam nga léeg ngay jaamu yàlla nit xool la ba yàgg ni ah, yow sa jaamu yàlla bi dafa xaw a metti dem ba yàgg nga dégg nit ñi ni bàyyi ko sax kii dafa dof léegi waaw na mi ngi muuroog di ju quatre heures du matin di wérd di wasifa ji kon daanaka wératul gis nga dafay dellu si aaya bi day dellu si ci côté xaqiqa côté xaqiqa bi mooy xaalu anuminu kama amana sufahaau léegi boo ne gëmal comme kii ñu ni ñun dinañu gëm ni dof yi gëmee waaw ñooñu dañuy jàpp déjà ni ñooñu gis nañu dëgg te comme seen dëgg ñoom ci aada la ñu daan mii ni dëgg dëgg bi nag du aada xaqiqa la su boobaa ñu ni kon ñii dañu dof xaalu anuminu kama amana sufahaau waaye nag borom dëgg bi te di yàlla dellu ni leen ala innahum humu sufahaau yéen nag yéenay dof yi xam nga lu tax mu ni yéen yéenay dof yi mooy dëgg bi nga xam ni ci xaqiqa la tegu yàlla du ànd ak aada yàlla léppam xaqiqa la yàlla aada bokkul ci organisation am lépp yàlla xaqiqa la aada amu ci place looloo tax na ki nga xam ni moom dafa gis dëgg bu tegu ci xaqiqa mu weddi ka ndax gisu ci aada kooku bu demee ba jàpp ni moom ñi yor dëgg ba ñoo dof yàlla mooy tontul ñi yor dëgg ba wax ka ni ka ala innahum humu sufahaau yéen yéen ay dof yi waaye walla walakin laa yaalamuun problème bi mooy da ngeen ko yëgagul da ngeen ko yëgagul ndax waa ahlu xaqiqa dañuy wax ni dëgg bu yàlla indi ci zaman mu war a yëpp àdduna yëpp waaye war a wër àdduna yëpp ñu ni boo jàppee ñi ci bokk ay dof problème bi mooy noo seulement yow mi jàpp ni ñooñu seen bopp feesul yow yaa wérul waaye yëguloo ko xam nga lu tax yëguloo ko mooy ëtt ba nga taxaw di leen weddi ak di leen joxeñ di wax ni wéruñu ëtt boobu bés dana ñëw say njaboot ñëw bokk ca dëgg ba indi ko ca ëtt ba mooy moo tax yàlla ni walakin laa yaalamoon mooy suñu mag yu baax ya lañ daan wax ñu ni diw a ngi wax rek ñu ni waaw diw de bu yëgoon lu koy yoot dana bàyyi moom lu muy yoot lu am solo la mag ñi dañ ko daan wax léeg-léeg nga ni leen di wa ngi weddi rek de ñu ni la diw bu yëgoon li koy yoot dana bàyyi la muy yoot moom walakin la yaalamuun kon gis nga réalité boobu day dellu waat réalité bi day dellu si ci côté xaqiqa ni yàlla jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dialogam moom yàlla ak ñi nga xam ni weddi nañ mais noonu la ñu mënee dellu si ba utiliser aaya bi mais dundaat ko ci sunu zaman mais firi ko ci côté shahada waaye aussi firi ci côté xaqiqa ndax lu ci nekk alquran indi na ko lu ci nekk rek alquran wax na ci ala innahum humul mufsiduuna walakinna laa yash'uruun yàlla ni yéen ñii di wax dangeen di defar mais au contraire yéen yéen a yàqkat yi waaye luy seen problème mooy dangeen ko yëgul loolu mooy seen problème dangeen ci yàgg ba defe ni seen yàq bi defar la alors que seen yàq bi bés du xëy ba mu mës a nekk defar ci yàq lay doon abadan ci yàq lay des abadan te man yàlla moom laa koy tuddee mu ni moo tax wa iza qiila lahum aminu kama amana nnaasu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء walakin la yaalamuun yàlla ni moo tax suñ leen waxee gëm leen nii nga xam ni ñi yore idéologie islamique te muy dëgg bi gëmee xaalu ñu tontu ñoom ni anuminu kama amana sufahaau ndax ñun daañu gëmee nii nga xam ni ñii seen mbopp yu feesul noonu lañu ñu gëmee xam nga lu tax ñu ni seen bopp yi feesul dañu jàpp ni ñooñu li ñuy def ñoom ñi toog di seetaan ñoo leen ëpp xel waaye ñoo leen gën a xam na ñuy gëme ñoo leen gën a xam na ñuy organiser islaam yàlla tontul ñu ndax yàlla ku nekk ci dëgg moo lay tontul ala innahum humu mufsiduun walakinna laa yaalamuun yàlla ni nag ala innahum humul sufahaau walakinna laa yaalamuun yàlla dellu ni leen yéen ñii yéenay dof yi ala innahum humu sufahaau yéen ñi yéenay dof yi waaye walakin laa yaalamuun problème bi mooy yëgu leen ko kon gis nga dangay ngay xool ni kon ndeke ñaar def leen jàpp benn bi leen njëkk jàpp mooy bi yàlla waxee ala innahum humul mufsiduuna walakinna laa yashuruun muy benn bi leen jàpp beneen bi leen mujj jàpp mooy bi yàlla waxee ni ala innahum humu sufahaau walakin laa yaalamuun bii yàlla ni yéen a yàqkat yi mais luy seen problème mooy yëgu leen ko bii yàlla ni yéen ay dof yi mais luy seen problème mooy bàyyiwu leen ci xel benn bu ci nekk na nga gis ni nar feq yi la yàlla di waxal foofu ala innahum humul mufsiduuna walakin laa yashuruun muy benn bi yàlla ni yéen a yàqkat yi waaye yëgu leen ko ndax da ngeen ci yàgg ci yàq ba defa ni da di defar benn bi yàlla ne wa iza qila lahum aminu kama amana naasu qaalu anuminu kama amana shufahaau ala innahum humu shufahaau walakinna laa yaalamuun bi yàlla ni ñii ngeen jàpp ni du ngeen gëm comme ñoom ndax da ngeen jàpp ni ay dof lañ réellement nag yéenay dof waaye luy seen problème aussi mooy da ngeen ci bàyyiwul xel su ko defee yooyu yëpp benn bu ci nekk alxuraan indi ko waay itam benn bu ci nekk na mu delloo woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais noonu la dellu si su suñu jamono ñu mën xool interprétation bu ñu ci indi ndax alxuraan ba àdduna di tukki xeet bu ñëw di nga ci gis sa bopp waaye xeet bu ñëwit di nga ci dégg sa réalité kon nañu ko bàyyi xel nañu ko bàyyi xel ala innahum humul mufsiduuna walakinna la yash'urun wa iza qila lahumu aminu kama amana an-nasu qalu anuminu kama amana shufahaa'u ala innahum humu shufahaa'u walakin la ya'lamun su ko defee rek tabarakallahu ñu bàyyi xel ci ñaari aaya yooyu nga xam ni moom la ñu ñëwoon tey pour tafsir ko di ñaan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif mu may nu nu fekke wat ba continuer ko benn bu ca nekk rek ñu am ca njàngat ndax mooy suñu njëriñ ca àdduna waaye mooy suñu njëriñ ca àllaaxira assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wala dunyaati wala dunyaati shukran shukran shukran